Euh, tey nag dama bëgg incha allah ñu waxtaanee lu am solo <clears throat> bu njëkk bi mooy lii nga xamante ne mooy coow Sénégal mooy Cour des comptes rapport Cour des comptes jamono yi euh, Covid jamono yi nga xamante ne dañoo tëj Sénégalais yi Sénégalais yëpp ñu tëj leen restez chez vous la pandémie Covid 19 Tiwaawan waa Tiwaawan tëj ñaari at. seen jumaa yi julliwuñu fii Sénégal am jumaa yu bëri ñu tëj leen Sëriñ Muntaxa yëkkati deux cent millions dugal ko ci Covid bi sénégalais yi muy man muy aji faatu mi muy jéen muy Moustapha Diop muy yéen ñi internautes yi ñëpp cotiser mais ñëpp cotiser ñu cotiser xaalis boobu nag ngir xeex pandémie bi ndeke ñun bi ñu cotiser ñañ ñi tax ñi ñu jox xaalis bu war a cotise ndeke ñoom ñu ngi sàcc alalu xaal askan wi euh, man mosuma yaakaar ne nit dina ñàkke jom benn peru ñàkk jom gi mel nii mais ñii ñoo ñàkk jom ñii amuñu jom mais xam nga lu ñu waroon def ñii dañu waroon taxaw ministère yoo xoo leen sàcceey wuub sàcceey wuub opération goqi jàppaleen mbër mi nag opération goqi la parce que lii mënuñ leen ko baal c'est impardonnable mënuñu toog tey jii Euh, am ñu faatu ci Covid bi am ñu ci ñàkk seen liggéey am ñoo xamante ne seen famille tas na ci am ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci wàcc liggéey am ñu ci jëlee ay jafe-jafe nga dégg ñu ne hôpital bi manqué na gaz ba am ñoo xamante ne tey jii ñu ngi faatu place amatul ci hôpital yi ndeke loolu lu ci bëri ay kàcci kase la man de vraiment vraiment non mais ñi ñoo ñàkk jom ñàkk jom. non ñàkk jom dëgg la def mais mais ndeke Sénégal ñi ñu jiite ñu ñàkk jom lañu ay sàcc ñu jiite ay randalkat et puis amoo koy randal kuril sa sa askan ñàkk jom ci prix yéen amoo leen amoo leen amoo leen gàcce sax tuub ñàkk jom sàcc yu bon yi ngeen doon mbaram non mais c'est c'est grave non mais réew mi ban réew la ñu nekk mais mais xam nga xam nga xam nga li garaaw mooy <laughs> ngeen baal ma de dañoo dañoo jël dañoo jël sàcc yi jël ay ay sàcc dugal leen ci kaso bi naan dañoo sàcc xar dañoo sàcc ginaar dañoo sàcc nàngam mais ndeke ñi ñu dénk ministère yi ñooy sàcc yu mag yi ñàkk jom lii moom duñ ko bàyyi mu sedd askanu Sénégal mënuñoo bàyyi li mu sedd tëj ñu kenn génnul seen kër yi restez chez vous ñit ñi restez chez vous ngeen génn ci ndeke yéen boobu yéen ngi randal naan ceeb ana xaalisu ceeb bi may wax ma dégg naa benn ministre <laughs> ministre boobu benn ministre bu génn naan moom moom moom il est il est quitte avec sa sa conscience mais ñoom dañu war a démissionner askan wi moo war a exiger la démission de ces ministres yi ñu ci tudd parce que cour des comptes li mu wax dafa graaw trop dafa dafa dafa dafa yéeme dafa yéeme malversation financière bu toll nii mësta am Sénégal bu flagrant nii cour des comptes génn ko non seulement euh, booy xool Diouf saar affaire bi da ko épinglé ministère de la santé dañ leen a épinglé ñoom ñooñu man je crois que ki yor ministère de la santé actuellement dafa war a démissionner ils doivent démissionner. Mansour Faye dafa war a démissionner ba pare ñu jël problème yëpp bëgg ko wékk daaj yi boo waxee ñu naan daaj bi moo signalé daaj mais yow yow ñii dañu jàpp nit ñi ay dof la lan ñàkk jom ñàkk jom ñàkk jom sàcc yi ngeen doon yéen yéen yéen yéen yéen yéen amoo leen fi askan wi sonnee xiif maral gi am entreprise yi cotisé sëñ Muntaxa génn deux cent millions yéen war ngeen sañ Muntaxa de war ngeen sañ Muntaxa sëñ Muntaxa génn 200 million dugal ko ci Covid bi ngeen ne ko dandiix lekk vous savez li haute trahison la maanaam ils ont trahi leur peuple ñii dañu dañu toroxal seen askan ñii dañ leen war a yóbbu haute cour de justice la war a yóbbu àtte leen pour trahison parce que aussi mënu mënuñ mënuñu nekk ci situation boo xamante ne les Sénégalais étaient fatigués ñaata nit lañ fi jàpp ba pare cour des comptes li mu wax dafa garaaw cour des comptes nee na gis nga chaque matin dañ daan taxaw naan euh, Rufisque cent soixante dix cas Grand Dakar quatre vingt dix cas Touba cent soixante quatre cas Ziguinchor <laughs> ndeke loolu yëpp ay kàcc neen la et pas vrai du tour loolu du sama kàddu kàddu cour des comptes moo ko wax. te docteur Niang l'avait dit sama plateau li ci dëkk bi la docteur ñaar toog wax ne masse ma ne ko ah, mu ne ma les chiffres que don li ñuy jox askan wi chiffres yooyu ndeke ay kàcc la kon yéen ngeen baal ma yéen mbokk internautes yi bu fekkee ne tey yii am na nit ñu dee ci Covid bi ndax manqué gaz ñan ñoo leen rey c'est une question que qu'on doit se poser Adji Fatou fekkee ne am na ñu dee ci Covid bi ndax manqué gaas am na ñu dee ci Covid bi ndax place hôpital amul am na ci dee ci Covid bi ndax moyen am na hôpitaux yu amoon problème ba mu mënuñu prise jël en charge yenn malades yi du Covid yi kan moo leen rey ndeke boobu askan wi bi muy sonn ndeke askanu Sénégal bi muy souffrir ndeke askanu Sénégal bi mu nekkee ci jaxle ndeysaan président recevoir ñëpp pale ñëpp mu recevoir leen pale Idrissa Seck keneen ak keneen Malick Gakou ba ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko benn yoon laa ko gis pale te Covid bee ko ci dugal te te te te te ku ma ne Ousmane Sonko mosoon na li yëpp waxoon na ko Ousmane Sonko l'avait dit ah prévenir woon na Sénégalais yi ci lu bëri docteur ñaar prévenir woon na Sénégalais yi lu bëri que te carrément lii mais mais c'est pas vrai ay mensonge la ay dëgg la man ñi ma yërëm moo ñi ñàkk woon ba pare ñi ñàkk woon. man musuma musuma gëm affaire affaire affaire Covid bii d' accord la maladie existe mais dafa am liñ ciy rax liñ ciy rax yëpp c' était purement politique dundee alalu askanu Sénégal jël ay millions dénk ko nit 15 nga doon mbokk ministre bi 15 milliards ñu jël 15 milliards marché jox la ko entreprise presse yi les industries les privés. ñoom ñëpp cotiser ak askanu Sénégal ci toowu ñaata milliards cinq cent et quelques milliards banque mondiale dugal xaalisam ci mbir mi ci ñaata taux de milliards ndeke boobu yéen a ngi muucu deretu askan wi ñàkk jom ci prix yéen amul ñii amuñu lu ñuy rus amuñu lu ñuy rus amuñu lu ñuy jomb bu ñu demee ba tey jii ñi ñu yaakaar tey jii dimbali seen askan wi ñooy mànq di muucu deretu askan wi ndax lan ndax poŋetu àdduna waaye nag mbéjum kanam de borom moo koy fajal boppam jàpp Pape Alé bi ñu jàpp yaakaar ne dinañ dinañ fàtte euh, mbirum mbirum Covid bii no opération goqi la <laughs> opération goqi lii duñ ko bàyyi mu jàll waaw lii nii duñ ko bàyyi mu jàll c'est des milliards may wax ngeen naan ceeb ceeb a ci gën a ndaw et euh, gis nga. dafa am loo xamante ne nit ñi dañ ci war a bàyyi xel lii daf ñu war a tax ñu comprendre ñen ñoo ñu diriger ñan ñoo ñu jite les ministre yi ñu ci tudd yëpp tous les ministres ñàkk jom tous les ministres dañu war dañ dañ dañu war a dañu war a démissionner tous les ministres yi ñu yi ñu ci affaire bi Cour de comptes ils doivent démissionner waxuma dara sax waaye borom leex yi njëkk war a démissionner borom leex yu diisi moo war a njëkk a du ma tudd tur nag ndax léegi moom tam ñu ne tam ñu ne la boobu nangam nangam nangam waaye borom leex yi diis yi moom kenn mënu ma a jàpp waaw borom leex yu diis yi mën nañ ma cee jàpp aja aja kii ah borom leex yu diis yi moo war a njëkk a waaw ci bu amee parce que lii scandale bu toll nii scandale boo xamante ni yaa ngi ko def sur le dos des sénégalais scandale boo xamante ni yaa ngi ko def tey jii les ay hôpitaux nit ñi di feebar ñi ñi di dee nit ñi ñàkk seen liggéey ñaata personne ñu ñoo ci ak Covid bi ñoom ñoo. ñàkk seen fi ñu doon liggéeyee ba retrouver ci nekk ci mbedd mi nekk ci ay tolof tolof ñaata sëy ñoo ci tas ci restez chez ñàkk jom ñu amuñ jom sàcc yi wuub ñu sàcc lañ non dañ leen war a yuuxu sàcceey wuub fu ñu gis nga askan wi ñoo waroon am fulla fu ñu génn ñu topp leen sàcceey wuub sàcceey wuub dóorkat yaa ngoog sàcc yee ngi mais mais mais c'est inimaginable aji faatu c'est inimaginable que Sénégal nga toog ci niveau bi Cour des comptes li mu génn nii yëpp dafa am point yu bëri yoo xam te ne bëgguma ci dugg xam nga dafa ko ci dugg parce que dama ciy def dossier spécial mooy dernier numéro li ci dëkk bi dernier numéro li ci dëkk bi incha allah lënd bi lii la ñuy war a waxtaanee mu invité ci ay kàngam yoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci parce que lii foo génn ñu ngi koy waxtaanee foo génn ñu ngi naan ndekete Covid bi du dëgg. man li ma ci metti rek mooy jàkk ñu tëjoon ak résultat yi ñu doon joxe bés bu set ñu lim Dakar ñaata kaa lii nangami kaa nangami ndekk loolu yëpp dañ doon gonfler chiffres yi ñii dañoo yàpp sénégalais yi yàpp sénégalais yi weesuwul loolu tey jii mais mais mais mais mais mais sur le dos des sénégalais ngay muuj seen deret ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo dem feebar ñenn ñi dee ñu tëj ay entreprise ndeke gaa yi boobu ñu ngi pàccoo milliards yooyu mille milliards yi ne ko ñoom seen biir ñu ngi koy sàcc dañoo sàcc alalu askan wi ñu ñi lu mu leen bëggoo sa xeeb ko seen leex yu diis yi ñàkk jom ñàkk jom waaye ñii ñoo ñàkk jom tuub sàcc yu bon yi non ñi sama xol lañ non sama xol dafa jeex waaye vraiment je je comprends pas mais sa façon du gouverner bonne façon gouvernance moo nekk nii dañu waxoon gouvernance sobre et vertueuse loolu lañ ñu digoon OFNAC ñaata dossier la génne OFNAC ñaata dossier la génne ñaata ñaata ministre la épinglé ñaata ñaata ñaata perte nit yoo xamante ne ñoo ñoo yor ay leng la la OFNAC OFNAC OFNAC OFNAC jàpp fan la mujjee mujjeewul fenn parce que président nee na am na dossier yoo xamante ne maa ci teg sama conc mais c'est grave après nag ñu ne ñu on est ñu ne ñu ne on état de droit war nañu wax sénégalais lañ mooy état de droit état de droit boo xamante ne tey jii baadoolo bi day gën di ñàkk état de droit boo xamante ne ku ñu fal nga tabax ay château état de droit boo xamante ne ñi ñu yaakaar ñu gindi askan bi sur le plan économique ñi nga xamante ne day ji yaakaar nañ ñu génne ñu sur sur la pauvreté ñoom ñoom ñooy trahir seen askan di dund seen kaw. ñoom ñi ñu yaakaar tey jii ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di luubal alalu réew mi ba pare nag benn ministre bu non koo ko gën a ñàkk ñoom ci ministre yi ma wax mu génn naan sa xelam sama xel sama xel dal na mais Sénégal quand man nag euh, j'attire l'attention des euh, des syndicats syndicats yi nga xamante ne tey yëpp ñoo nekk ci santé benn mais syndicats yi nekk ci yeneen secteurs yëpp. ak société civile dégg naa Birahim Seck di ci wax démb je crois que lii bu ko Sénégalais yi seetaanee bàyyi mu jàll amatuñu lenn lu ñu war a toppee ñii parce que réew moo xamante ne tey dafa bokk ci les vingt cinq pais les plus pauvres du monde réew boo xamante ne tey jii plateau technique plateau bu bu bu bu ñàkk solo la ci sur le plan sanitaire réew moo xamante ne tey jii ndoolu mu fa. misère mi ngi fa galère mi ngi fa chômage mi ngi fa ils ont trahi leur peuple ils ont volé dañoo sàcc askan bi te li ñu sàcc dañ ko war a delloo loolu il faut que ça soit clair rapport bi li mu wax dafa bëri trop jaaree ko ci gestion bi jóge ci gestion bi distribution ceeb bi rapport bi ñëwul foofu mais sur le plan sanitaire la ñu jëndee ay gants ak ay masques ak ay yooyu rapport bi yemul foofu rapport bi ñëw ba ci chiffres yi ñu joxe rapport bi yemul foofu mais dafa génne ne li Sénégalais yi yéen ak man ak ñëpp li ñu cotiser ngir lan ngir ne dëkk bi fi mu toll ku ne dafa war a génn ci poosam joxe benn waay na ko dëndiix lekk ndeke boobu ñu ngi koy pàccoo am leen ngoru nag yenn daaj yi yéen ministres yi am leen ngoru démissionné je crois que tey ji président Macky Sall euh, moom ci boppam moo war a njëkk jël ay responsabilités parce que sénégalais yi duñu bàyyi lii mu sedd jamais de la vie mënuñu toog di seetaan tey jii ay nit yu tekkiwul dara ay sagaru nit laa wax parce que sagaru nit mooy def lii en fait sagaru nit mooy def lii ñàkk jom sàcc yu bon yi ay ñoom ñi ñoo ñàkk jom. ñii ñoo ñàkk jom musuma xalaat ne Covid bi lu ci bëri ay kàcc la ay sos la sénégalais yi restez chez toog leen fii gars yi génn ñu dóor na liif couvre feu télétravail ñi ñi di ko di di def télétravail Tiwaawan tëj deux ans jàkkam julliwul gàmmuwuñu Cheikh sëñ taxaa génn deux cent million war ngeen sëñ Muntaxa de yéen alalu sëñ Muntaxa sàcc ngeen ko alalu askan yu sàcc ngeen ko. vous avez trahi votre vos vos peuple votre peuple war ngeen seen askan mu ci ngeen deretu askanu Sénégal waaye ne leer na xaalis boobu dina génn de waaw xaalis boobu dina génn trop te duñ ko bàyyi noonu léegi dañuy ñëw ci beneen cas ndax ñii moom vraiment mënuma attardé wu ci ñoom ndax ñàkk jom gi ñuy ñàkk jom ba sàcc alalu askan bi ndeke ñun ñii non non non ñi ñooy sàcc te ñàkk jom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg